5M TV Sénégal chaîne bi leen di jox xibaar yi leen ci anam yu wér ci wóor. kenn mënul génne ci xelu sénégalais yi ne dañoo bëgg a porter sa candidature Ousmane Sonko dañ ko bëgg a lool loolu kenn mënuñu ko génne ci xelu nit ñi xam nañ dañ ko bëgg a éliminer nag dañ askan bi ba xam ñun dañ seetaan ñu éliminer euh, Sonko ndax boo xoolee nit koo xam ne jàpp nga ne boo demee élection mu gañ la loolu nga jàpp nga ne carrément dinaa ko xañ ba dem élection. pour yow ña ko bëggoon a fal boo ko éliminé jàpp nga ne ay élection danañ ko fi organiser mu jaar yoon te ñu waroon ka leen waroon a représenté teewul loolu xel sax nangu ko bu dee loolu moo nekk seen bopp nañ ko teg ci suuf soo ko bis bu faloo nag dossier bi dañ koy àttewaat loolu mbir ma te dossier bi bu ñu ko àttewaatee ñun suñ xaalis bi ñu dugal Prodac Prodac gis nañ caméra yi dara nekku fa dara nekku fa te dañoo waxoon nañ ko def ngir zone yi benn zone gisu ci boppam Mame Mbaye Niang nekk benn saraxu bëy ci biir dëkk bi yaakaar moom moom nit ñi